Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre toute nouvelle émission L'homme de la semaine. L'homme de la semaine, l'émission qui est au suivi de toutes les générations sur Wassari TV. Wassari TV, nous sommes l'armatan, nous sommes les, la de l'innovation, nous sommes Wassari TV. Nous sommes am train ak kontaante bu encore une fois c'est bel numéro bu sur l'homme de la semaine euh, comme à chaque fois ah, di am mbégte ak kontaante bu baax a baax euh, di bokk ak plateau bi sama xarit sama Omar le grand journal

waaw maa ngi lay fay Omar maa ngi nuyu Momo vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu ñaari wayjur di nuyu waa Parcelles Assainies di nuyu waa Sénégal yëpp nag ah à travers partout dans le monde ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen dalal jàmm. alors comme ni mu ko waxee rek ñun tamit ñu ngi lay dalal si suñu émission bi di l'homme de la semaine comme ni ñu koy faral di defee rek ñu koy dooree si ah, ni ñu ko commencé ni ñu ko tàmmee di defee mhm. alors tey Amadou boo ñu doon wax. Amadou moom mooy kan ñi nga xam ne si ne xamuñu exactement kan mooy Amadou lan nga leen di wax. waaw euh, balaa maa def dara damay nuyu ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ma encadré di samay grand ku ci mel ni Aziz Gueye ku ci mel ni Noreyni Aboubacar. ah Fallou Mamboy Mayram Idi sama xarit yi Cheikh Omar maa ngi nuyu ñëpp xam nga di kontaan ci ñoom bu baax a baax waaw Amadou nag comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee léegi-léegi dootuñ ma présenté mais xam nga weñ moom bu duggee ci Paane Sow xaruwul bànneexu bakkanam la toog yàqul dara ñu waxaat man maay kan waaw man la Amadou Anne vraiment di artiste dëkk parcelle en même temps élève en classe de terminale vraiment waaw nice daal li <laughs> comme nous nga dit, waxee kooku Amadou Bonnet, nee Amadou c'est un petit galet parce qu'il a une voix merveilleusement bien posée, posée sur la musique avec sa avec sa voix mystique son talent magique avec sans critique comme nous mu dit à chaque fois comme nous daal dit comme ni ko euh, sama xarit sama doomu ndey kii di Omar laajee Omar kan Amadou. waaw comme nous nga dit, Amadou Moy, jeune artiste bi nga xamante ne si parcelle, à Parcelles unité 11. damay profité ci loolu nag di nuyu monsieur le maire Go Faye di nuyu tamit sama tonton délégué maa ngi nuyu aussi sama nijaay Ousmane Sy ñu naan ko nuuree ni waaw Amadou nag xama booy la rek xale la xama di taalibe di taalibe Serigne Babacar Sy xama bëgg musique jaar seen petit gàlle nekk fa ba tey it xama wax dëgg yàlla boo ba tey dara ñaawul bëgg musique yaakaar ci tam incha allah yaakaar ni xam nga ba dina ñëw ñu téye ñu daal téye Amadou Amadou dëkk parcelle uit 11. noo def ñun la kii di Amadou peut-être am na ay jaar-jaar peut-être xale bu tëradi la woon wala xale bu sob la woon bu doon wax tey jii sax xale euh, noo ko dundee loo ñuy wax. waaw <laughs> xam nga comme ni ko waxee rek xam nga man moom fii laa juddoo parcelle banlieue bi sax mënoo fee judd moom tëddoo tëradi. Mm. dama doon ni ko xam ne wax dëgg yàlla damaa tëradi xam nga bëggoon nag ay affaire la bëre yi nii xam moo tax tey su ma doonee woykat nag daf may xaw a jaaxal <laughs> daf may xaw a jaaxal trop parce que dama bëggoon làmb xam ay bëre laa doon fontu xam nga su ma jaagi yee ñëw jël sama sëru yaay xam nga ko dem bëre ji foo affaire yooyu noonu xam nga mais liñ naan non l'homme n'est pas ce qu'il est mais ce xam nga noonu la fa demee yàllaa ma def woykat tey jii nii xam nga nice baax ah, alors comme ni mu ko expliqué rek euh, ba mu nekkee ndaw bëggoon na làmb lool waaye terewul tamit xam nga mu dem ba benn instant mu ñëw si musique bi alors te ku wax Amadou tamit dangay wax seen petit gàlle te ku wax seen petit gàlle musique nga ciy teg alors ma bëgg la laaj yow avant loolu noonu euh, musique bi si commencement bi hmm. nan nga ko doon dundee est-ce que amoon nga ci ay jafe-jafe pour intégrer si carrément wala déet waaw alhamdulilah balaa dara balaa maa tàmbali foofu damay xuus ñëwaat euh, di nuyu tataangoo ne li nga xamni tay tey ni li lepp mom la ak wa Prince Art yep bi nga xamanteni ci ci label bobu la nek jamono gi may wax ak yaw ni di nuyu bu baakha baax tonton Ibou Ndour ak wa Prince Art mama Tane tonton makou ñom ñepp dal ma ngi nuyu te di leen ñaanal jamm waaw comme ni nga waxe rek way mom musuñ ci am jafé jafé ndax seen petit galé lañ jaar seen petit galé ñepp xam nañ ko parce que bo xolé sax tay jii ni ñi commencé way sax dañuy ñaan jaar seen petit galé pour gëna mëna xam musique non seulement ñi ñuy jàngal musique te musique boko jàngé yaakar na ni pour nga am ci ay jafé jafé du yomb xam nga na wa Prince Art nekk suñu ginaaw nak yeah. alors c'est fofu tamit comme par exemple avant seen petit gàlle mm. n'est-ce pas da nga am amour way bi tellement ba mu jaral la mm. ngay dem ci yenn diwaan milier yi mm. di way kat wala dara ba tax amour bobu dug ci yow waaw non la démé motax euh, moy limay wax rek premier jour mo woyee sax dafa jaxa sama yaay parce xamul woni carrément man loolu mi ngi ci man bëggon na woy trop mais da doon nek sama classe tay may jangé primaire école yi da doon nek sama classe di woyantou prof yi di ma ci dàq di ma ci dàq di ma ci dàq ba benn jour ñu bés ñëw ñu def composition ñuy compo xam nga boo defee composition pare dañ lay defal récitation chant xam nga ma ñëw ñu ne chaque jour comme yow yaay woyante fii ci kii bi ci classe bi mhm. tey doo doo doo doo def chant quoi doo resté tey da nga dañuy woye benn woy ma interpréter ci woyu Abou Thioubalo solution. si waaw du ko faté mu xama yakarna ni loolu moma gëna motiver sax pour ma gëna don doon kat waaw solution bobu euh, nek son Abou Thioubalo bu ñu en 2013 euh, mom la woy mom la def maanaam lii di prime 2 bi. bo moo suma su mom la woy. mais prime 1 bi euh, du mu woy mooy woy bi di Youssou Ndour mais prime 3 bi mu woy woy bo xamné mu mun na mun nañu wax ni mo jaaxal Sénégal yi parce que Amadou buñ ko waxé bu xolé xoolee ethnie ethnie pël la Sénégal fi ñuy làkk français dañuy làkk mais mom dafa boole si woy woy bi euh, parce que woy Youssou Ndour di woy di làkk français di làkk la wala don la. waaw loolu mën naa ne don la. Mhm. xam nga parce que talent moom macha allah mais don la quoi. bu ñu fàttalikoo yaa ngi si ànd ak awa bu Gambie. awa bu Gambie dëgg la seven mhm. second. seven second Youssou Ndour ak Néné Chéri. Mhm. waaw doonoon nag trop. parce que man ma ko joxee sa dama tiit. mais xam nga ba ma ko dégloo jàng ko nii xam rek du ne sa deret mënut a bañ ma ko joxee ma jàng ko bon dama ko jàng ñëw ñu répété ma dóor ko mu daanu après ñu jàng ci leneen. au na ngeen di choisir maanaam texte yi est-ce que yéen yéen lay neex maanaam ngeen ngeen jël benn texte wala kii di Bouba Ndour wala Aby Ndour euh, euh, Ngoné boo leen jox benn texte ne leen ngeen ngeen ngeen woy ko. waaw ñoom tonton Bouba maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñii ñi ngi naan sama nduróo waal la nag. waaw nduróo ngeen trop mais maa ko <laughs> xam nga maa waaw. maa ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ñaanal jàmm waaw woy xam nga bu ñu ko doon tànn sax day yomb boobaa kenn kenn du gañe <laughs> ñëppay dem mais ñoom ñoo ñu tànnal woy jox ñu woy après ñu woy alors euh, ku wax Petit Gallé aussi ñëpp xam nañ ni pour ñu sélectionner la dañ leen di euh, regrouper mm. comme ni ma ko mën a waxee ah, ñoom ñëpp ñu ñëw woy ñu xool seen talent mais dama bëgg xam exactement jour bi nga xam ne si ni oo nañ la wala ñu ñëw ba ci yow nii la yow la ñu sélectionné pour nga war a euh, représenter banlieue bi yëpp mm. affection ban nga yëg. waaw kontaan rek kontaan rek wax dëgg yàlla parce que seen petit moom boo xoolee mooy maa ngi tudd léegi-léegi sama nijaay Ousmane moom moo gën a tax ma dugg seen petit gallé. xam nga parce que xam nga fii lañ toogandoo fii ñu toog nii ñu koy seetaanandoo ma pourquoi pas a dem fii ndeke moom dafa doon tooñ. a nekk booy xam nga xale mm-hmm. laa jàpp xam nga ba yàlla def tey jii ni ñu def seen petit bañ ma woowee nag ne ma yaa seen petit wax dëgg yàlla dama kontaan xam nga parce que lu ma yàgg bëgg la waaw. et en même temps aussi nga nekk tout tànk mën naa wax. nekk ndaw est-ce que boobu noonu tamit amoo woon ay quelques problème ak say parents wala si famille bi. ñu naan ah kii kat xëy na ndaw la wala bu génnee télé siiw yi mu koy kii. Mm. ce que amuñu woon ay doute yaakaar ni dina la créer ay problèmes si sa jàng wala si sa milieu bi nga nekk. waaw dëgg la nag dëgg la xam nga moom moom suñu parent yi moom xam nga ñu nay tukulóor lañ parce que boo xoolee tukulóor te ay tooroo doo si ay géer lañ maanaam xam nga ñii ñu ngi naan biir du way affaire yooyu noonu mais xam nga lépp bëgg-bëgg la mhm. aw ma ci woon problème ak sama yaay aw ma ci woon problème aussi ak sama papa aw ma ci woon benn problème wax dëgg yàlla mhm. ñoom ñoo ma dooleel nag xam ma jàppale ma ma gën a dem ci kanam quoi mais ma ci woon benn problème wax dëgg yàlla yaay te jii nii boo ñu doon wax yéen seen biir euh, maanaam seen biir mooy au sein de seen petit galé seen biir yéen a di dundee parce que des fois tamit euh, ñu dégg comme Sénégal yi nga waxee naa seen petit galé boo fa demee amul jàng parce que ñu fa dem ñu bëri seen jàng dafa fa nekk maanaam dañuy jëlandi seen biir euh, yow loolu boo koy dégg nu mu la ban réponse ngeen di jox. waaw alhamdulilah xam nga ñun moom yàlla dafa def ni way nañ ko sax xam nga ku ñu gis foog ne rek dañuy way te boo xoolee jàng bi lañ jiital waaw way nañ ko ci benn suñu benn way groupe jàng yàqaluñu euh, way yàqaluñu dara ci suñu jàng parce que instant bi ni may wax yow nii terminal lay def te ba ngeen gisee ma dala nekk seen petit gallé ba léegi wax dëgg yàlla dara yàqalu ma sama jàng xanaa di ci gën a dem kanam di ci gën a jëm kanam parfois nag dañuy dégg xam nga ay dañuy yàq seen jàng ay yooyu noonu amul yàlla xam na ko xam nga ñi ñu xamul ñu rek ñooy wax mm-hmm. mais yàlla xam ne man nii may wax ak yow nii te daa ne mooy fay sama jàng di ko fayal ñu bari waxuma la seen petit gallé kese en dehors seen petit gallé am na ñeneen ñu muy fayal seen jàng vraiment ñi ko si sant bu baax mi ciy bay waaram aussi kon dafa mel ni dafa mel ni euh, seen petit gallé bi am na ay biens yum la apporteel au ay mal yoo xam si ni li nga xam si ni moom la nit yi di gis parce que comme ni mu ko waxee rek ñu bëri bu ñu waxee seen petit gallé ñoom côté négatif bi rek la gis du ñu gis côté positif bi alors ñooñu to tey lan nga leen di répondre une bonne fois pour a comprendre exactement que seen biir petit gallé euh, y a bien que de waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga seen petit gallé moom dafa doon euh, émission boo xamante ne sii àdduna yëpp a koy seetaan te ñun toll nañ foo xamante ne si ñëpp ñu xam xam nga ñëpp ñu xam te tey jii nii Amadou du génn ci bedd mi bañ ne kii kan la am na ñu koy xamuñu quoi ñu ma xam rek mais ñu bari tey jii nii xam nañu ma seen petit gallé ñii naan du ñuy jàng dama naan leen lan laa leen mën a wax sax dama naan leen carrément dañoo xamu Mm-hmm. parce que man tey ñi ban classe laay def terminal laay def mm-hmm. mbëgg am na bac ndaxte am na bac mm-hmm. xam nga bintu saali ñëpp ñoom ñëpp am nañ seen bac macha allah xam nga ñun ñoo des te ñun ñooy tet yi Mm-hmm. parfois dañuy jël ñu naan booy yéen jàngoo leen affaire yoo na nangam sans parti ba tax te yàlla xam ne ñu jàng xamuñu rek moo tax ñu wax mm-hmm. tamit am na benn boo xam ne si ni daal dañ leen ko tegal man côté boobu moom parfois damay naqari. muy lan la waaw ay xale lañu mais dañu jël loo xam ne si ni lu naajsul rek. Mm-hmm. tegal leen ko ñi nga xam ne si ni ñëpp ñooy waa Petit Galle. parce que damay bañ a tudd tur mais am na ci lenn loo xam ne si ni boo mooy tax ñu bëri Euh, euh, di jël étiquette boobu noonu. di ko euh, tafal waa Petit yaakaar ni booy bu ñu duggee foofu buñ fi génnee rek dañuy yàqu alors lan ngay répondre ñoom. muy lan maanaam exemple mooy pour mu leer pour mu leer ah, <laughs> bu ma manee tudd tur. jaara jaara bu bi nekk Europe. à Paris. n'est-ce ñu ngi koy suivre. Mm. alors pour la moment moom tax na ñu bëri commencé wax naan seen Petit Gallé ñi fi dugg ñëpp dañ leen di yàq. Mm. est-ce que yaa ngi comprendre mm-hmm. parce que boo dee xool buñ dugalee seen vidéo wala dara sur YouTube mm-hmm. boo xoolee les commentaires loolu lañ la fay bindal mm-hmm. nii ba commencé indexé parent yi ñi nga xam si ñooy bàyyi seen doom alors yow lan ngay tontu ñooñu ñu xam exactement que ni fii nii ah nekkul pour yàqu wala pour defar la waaw xam nga jaara boo xoolee moom mi ngi ñëwoon su ma 2015 la ñëwoon seen petit gaale ah man 2013 laa ñëw jaara mi ngi ñëw 2015 seen petit gaale mu def final jëlu ko kan moko jël suma kamu, semua xam nga su ma xam kan moo ko apa Fatou Fatou Mauritanie moo ko iya. voilà ñu ñëwaat ñu dawlaat 2016 ñu def All Star. All Star kan moko jël du mom mm. yalla dimbali ko mu dem ci États-Unis nek ben ci ben groupe bu ñaan United. justement pour ma xamal leen ben affaire jaara manam sen petit galem ñun bokku na ci suñu référence ñun. xam nga amana colinam affaire yoyu nonu xam nga mais non la mëna def parce que fi mu nekk la xam nga mais bonu nit ku bax la te famille bu bax la famille Mbacke Mbacke la bokk xam nga jaaro bi nit ku baax la wax dëgg yàlla te vraiment maa ngi koy encouragé te di ko ñaanal yàlla na ko yàlla àggale yoonam waaw buñ jógee foofu day ñëw fenn mooy maanaam prime yi prime yi boo ko waxee euh, ñaari chanson yi ñooy gën nekk sa bopp muy biiri trésor ak biiri chanson boobu di alim wooyu alimay boobu te dugg sax ñoo ngi ngi dégg nga xay teg mm. euh, wéy yooyu bu ne amul seen petit sa xel si wéy yooyu lay dem nooy expliqué ñaari yooyu waaw xam nga man moom ndeer sama waykat la dama ko bëgg waaw trésor nag bon mën naa ne sax moo ma taal quoi à part wooyu abu ci solution yi xam nga dañoo doon wooy yoo xam ne wax dëgg yàlla jox nañ ma ko sax mais man la gën a neex quoi. waaye mm-hmm. mais tamit bañ demee loolu ñu gis à chaque fois si commentaire yi dañ naan Amadou waruñu ko woon waruñu ko woon éliminé en 2013 ñu dem euh, ko jëlaat. ñu daal di mm-hmm. ko éliminé waat à chaque fois euh, ñii di say euh, fan ñii di say supporters à chaque fois dañ koy kaas yow ko doon dundee a chaque fois. waaw loolu la rek xam nga compétition la xam nga nit ki moom booy dem da ngay bul dem kese pour am. Mm-hmm. dem pour dem aussi tam pour ñàkk xam nga noonu la rek compétition la pourtant ñi ma dàq way fukki junni yoon ñu ngi dañ leen a éliminer naan sam affaire yooyu la waaw loolu dara xam nga compétition la rek mais taxul tamit xam nga taxu doon ay artistes xam loolu moo ma def artiste tay jii nii mhm.

ñu naan fois sax euh, day jël euh, peut-être ñu naan jigéen ñi wala dëkk Dakar lay gën a day euh, gën a jox gëdd ka ñeneen dëkk yeneen région yi loolu si wax. waaw xam nga ñooñu tey ñoo ñu jiitu ci musique mhm. Bouba Ndour producteur la xam nga artiste bu nekk yor na ko fi looloo tax ñu teg ko ci membre jury mhm. xam nga mais seen liggéey rek lañu def loolu dara nekk ci xam nga. amaana sax jour boobu nag maa xaw a wàcc kii tuuti mais yooyu coono ji xam nga compétition la daal. Mm. loolu daal garaawul quoi xam nga. <laughs> boo déggee ñoom ñun ñëpp ñoo bokk même kàddu ah. waaw ah, xale yi seen petit gaale ñoom lañ jëpp bëggandoo def ko seen baay jël kii di. Euh, ngoone du def ko seen yaay moo tax xam naa duñ mën a wax si moom euh, loo xam ne dafa ñaaw te en mm. plus tamit comme ni koy waxee yaa ngi ko dégg léegi mu ni moo leen fayal nii di jàngam donc c' est quelque chose de bien peut être tamit euh, am na ñoo xam ne xamul tey jii nii à travers amoo dina tax ñoom ñu gën a comprendre dina tax tamit ñu bàyyi ñu mën a bàyyi seen doom yi ñu dem fii di seen petit gaale sénégalais mais tamit am man mm. dafa mel ni même su ma am di ko dégg à chaque fois muy woy damay yaakaar ni kii di Youssou Ndour moom mooy idoolam parce que bi ñuy xool depuis 2013 ba 2016. am bu ñuy xool woy na lu mat cinq euh, son Youssou Ndour. waaw wala mu ëpp ko sax li ma ko woy sax ëpp na ko amaana ci prime yi mais suñu tournée yi sax à chaque fois xam même bu ñu ma tànn looy woy sax ne ban woy nga bëgg a woy mm-hmm. dama naa woy Youssou Ndour xam nga Youssou Ndour référence la kenn dootu ko waxati fii ci musique Sénégal. est-ce que moom mooy sa idole wala am na keneen. mooy sama idol. Mhm. mooy sama idol mooy sama référence ci musique moom ak Baaba Maal. Mhm. waaw Aline Mender sama woykat la. Mhm. yaa nda doko badum comme nga ah. déggee nee na mm. moom Aline Mender <laughs> ah, ak kii di Aline Mender ak kii di Baaba Maal mais bu fàttali gars ñun moom ñoo seen buur ñu séeréer yi. non loolu moom <laughs> <laughs> loolu moom tey ah. alors euh, man tamit euh, ci musique bi ah. instant bi xanaa nag ah. Mm. buñ Amadou biñ koy xam. Mm. Euh, seen petit gàlle booy la woon. mais instant bi grand la. Ah. waaw pourquoi pas génnee ay single. wala teg ay son ba gaa yi mën a xam exact gën a xam. talawam ak lu mu gën a mën a. waaw xam nga lu yëngu rek la ko yëngal ko doole mooy li ma la wax léegi léegi. xam nga loolu xam naa du ma ci sori ndax incha allahu rabi léegi mu pare. ndax ñu ngi koy waaj bu baax a baax maa ngi leen ko wax léegi léegi ñoo ngi Prince Art te Prince Art da di boo xam ne moom macha allah. xam nga artiste bu ñu téye rek am na tax ñu téye la. ndaanaan rek a fay nekk ku dul ndaanaan moom nekk. Mm-hmm. xam ñu ngi ci loxoy Prince te ñu ngi di waajal ak yéen suñu soppe yi lu bees tàkk incha allah rabi yàggatul dara. mais tamit est-ce que maanaam du am ay quelques frustrations bu xoolee kii di jaara moom mu nekk États-Unis nekk foofu sa euh, Now United ñu gën ko xam boo xoolee moom comme ak par rapport ak yéen. Hmm. mun nañu wax ni euh, rawal na leen lu bëri bëri bëri parce que moom moom Eiffage fi mu toll nii euh, artiste international seen petit gàll mun nañu wax bu fekkee ne sax moo ngi dem si sous région lu si mel ni Gambie lu si mel ni yeneen yeneen dëkk yi tamit est-ce que tamit seen petit gàll amul fenn foo xam ne fa la leen freiné. freiné maanaam comme bu ñu jëlee exemple si jaar ak yi ñu fa des. Hmm. waaw. non xam nga loolu euh, pour moo ko xam naa pour la première fois sax ñii ñi di ko dégg audition boobu noonu mu dem tey jii nii Now United compétition la comme genre benn euh, sélection la. sélection la moom ak moom ak stade man mii ci laa bokk man mii ci laa bokkoon bëggee Moustapha xam nga Mohamed Pape ñun ñëpp ci lañ bokkoon ñun ñëpp ci lañ bokk ak ñoom ay Chopin ñëpp ci biir. ci lañ bokkoon mais amaana xama tubaab bi moom lañ jël affaire yooyu noonu xama yàlla na doon jiglaayam daal xama ñun ñëpp loon quoi mais affaire daal changé ku nekk da bay sa waar quoi musique bi Omar tamit sànq ko brosse mais di euh, euh, wax ma la sax Prince Art mu daal di génn def comme yeneen artistes yi ñuy def euh, lu si mel ni buñ fàttikoo Dieyla lu si mel ni tamit Sokh Bébé ñu ngi toj essence yi fu mu nekk ni àddina est-ce que yéen tamit mën na leen xaar ngeen génn Prince Art wala yéen Prince waaw ñoo ñom ñep ñi ngi toj macha allah li ñu way neex na mais ñun itam ñoo ngi toj wa parce que bo xolé xam ñu ngi def lu nekk daal ñu ngi xol xam amana nak amna na ñu ko dul gis mais ñi nga xam ni fan si seen petit galle fan si Amadou yi fan si ñeneen ak ñeneen ñu ngi gis ñu ngi comprendre bu baax baax ñoo ngi toj ñu ngi def ñu tamit ñu ngi ci mais yeen bu len xolé yeen vacances ba France vacances France ngeen génn par rapport ak la par rapport ak ki bébé euh, soxu bébé wa moy li ma wax légui légui rek lolu mo lay wone carrément ñun ci jang bi lañ gëna baser sax que musique bi parce que yaakaar naa ne loolu moo loolu moo ñu gën a mën a dooleel mais ñoom tamit ñoo ngi jàng parce que boo xoolee kii di sox bébé tamit am na li bagam waaw macha allah ay jàmbaar lañ xam nga hmm. yàlla xam nga mais actuellement nii nii nii jàng la ñu gën a sas ka way yàlla xam na ko hmm. xam nga ci ay école yu baax hmm. ma tiim moo tax may wax li ma fa nekk non non jàng la gën a sas ko loolu lépp li nga xamante ni si ci wàllu musique la suñu wàllu répétition suñu wàllu single ak album lépp ci seeni loxo la nekk man Amadou Day ah yalla baxna da ku nek nak ñaan nga yalla am sa yefi bop mais man mom kanta man ni ni ni nii mhm. ñaan naa yàlla des ak wa Prince Art. Mhm. avi gis nga sa bop daal. bu baax alors euh, ma ñew ci vie bi comme par exemple. ay mhm. ndaw yo xamni ne bokku ni suñu dëkk. ku nek ci mu ngi joggé Tamba mën naa wax ki joggé Fatick ki joggé Dakar ki joggé Saint-Louis alors nan ngeen di dundé ci biir bu buñ demee ba nga xamni ne euh wo nañ leen wala ngeen wara accompagner euh nouveau yi. Hmm. vie bi noonu ci biir. Mhm. nan ngeen koy dundee foofu noonu. waaw jàppante mag ak rakk rek frère et sœur xam nga li nga xamante ni si loolu la ñu woowee ñu def ko parce que nit moom yaakaar naa ni bu ñu la wóoluwee ba jox la leen da ko war a sàmm n'est-ce mhm. ñoom ñi mujjee ñëw suñu ay rakk lañu dañ leen di teete dañ leen di teg ci yoon comme ñun ñoo leen fa jiitu. Mhm. comme ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wan yoon bi. dañ leen wan yoon bi rek xam nga def ñu def ñu def lu ñu def daal. xam nga et en même temps aussi. Euh, xam nga rek ay góor ak ay jigéen. Mm. fu ñu nekk tamit. Mm. des fois gars yi foog ñu waxal leen wala ñu ñëw gis leen ci yenn yi wala ñu gis te tamit dafa am benn affaire bu fa am. Ah, dañuy gis ni jigéen yi fa ne wala góor yi fa ne. dañuy parfois dañuy xaw a sexe yi def seen ay photo posté et tout. waaw xam day tax nit ñi di pensé si yenn affaires yi. waaw loolu loolu. <laughs> yow yaa gën a soxla ah, question ah, non non mais c'est nga mm. ndaw lu yàq deram daa yomb. dëgg la te surtout boo nekkee ci benn milieu bi. alors kon su fekkee nga posté yenn genre yi rek xam nga nit yi hmm. xel lañu yor dañuy xalaat kenn hmm. mënu leen tee xalaat alors waaw mooy li ma wax léegi léegi ñun ñëpp ay frères et sœurs yàlla xam na ni man de jigéen ñi fa nekk ñi hmm. yàlla rek ma tiim barki yàlla jigéen ñi fa nekk ñoom ñëpp dañ ma rus Aïcha ko ne mbëggee ndax tey Justine kenn nee na gaal ñi fa nekk ñoom ñëpp dañ maa rus yàlla xam na ko kersa la ñuy doxee te ni ñu mel ak man noonu la ñu mel ak Moustapha mel koog Pape mel koog Mouhamed xam nga mer koog Saliou mer koog Doudou mer koog ñëpp nag yàlla xam na ko frère deret la nu xam nga leneen mënu fa am jàmm rek fa mën am quoi. dinaa si gën parce que tamit euh, peut-être des fois dañ koy xam ñëpp xam nañ tamit ñu nekk seen petit gàllé tamit ñoo fa nekk te euh, à chaque fois dañuy ñu gisee Amadou gis fa Aïssa Koné. Mhm. ñuy ay Amadou ak des fois sax que loolu tamit dëgg. <laughs> parce que ah, tamit euh, pour pour fi am. parce que moom dañuy gis sànq muy lim maanaam jigéen ñi. waaw teg devant moom la njëkk lim. et pourquoi waaw Aji Koné maa moom xam nga dañoo bokk ay fans quoi. Hmm. boo xoolee souvent sax maa ngi moom dañuy photo lu bari. Hmm. gars yi foog ni sax maa moom te yàlla xam ne Aji Koné du sigi xool ma. Hmm. jëloo ko ci suuf. non xool ma ku xool la ko jël. ah bien yàlla xam na ko billaay. kon jëloo Aji Koné mais na kenn koy jël. aw ma kenn ku may jël aw ma kenn ku may jël seen ñoom ñëpp samay rakk ñii samay rakk lañ jigéen ñëpp sax leen mag amaana. ay benn at ñii ñaari at ñoom ñëpp samay rakk lañ. ama amaana Aji Koné nag moo ma gën a jege quoi mais sama rakk la sama xarit la waaw gën ko baax xam da dañ si gën a xuus. waaw kay <laughs> comme ñu koy waxee bu léegi nag dañuy xaw a génn tuuti tuuti si biir euh, seen petit gaale maanaam tuuti waaye tamit dañuy dem fekk euh, maanaam ci biir biiru Amadou dëgg dëgg dëgg parce que Amadou tamit boo ko gisee xam ne jantal la tooroo dara même fekkee ñun suñu suñu jaam la sax <laughs> euh, comme ñu koy waxee à chaque fois mais tamit Amadou. waaw ak kii maanaam ak si mbedd mi. Mm. maanaam mbedd mi ak Amadou lu muy dundee si fonction ak si mbedd mi. waaw di nuyuwaat waa Parcelles Assainies bu baax a baax. di nuyu nag ñi nga xamante ni si ñooñu ñoo may taxaw ñi nga xam ne dañ fay taxaw benn staff bu dëgër muy Aziz Gueye waxoon naa leen sànq vraiment mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax sama grand bu baax la xam nga di ko ñaanal jàmm di leen ñaanal seen liggéey bi nga xamante ni si moom la ñu jublu di ma ko jàppale yàlla na leen ci yàlla àggale jàmm ak buuba mii nii toog sëñ Fallou ñoom ñëpp sax ñëwuñu xama parce que dañoo nekk ci activité dañuy nekk ci seen mbir vraiment fépp fu nu toog man la ñuy toogee waxuñu du dul samay wax ñu tuddee nag seen groupe J'aime Amadou xam nga di ay grand yoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo am jom di yëngu tamit ci wàllu social xam nga parce que d'ailleurs sax ñu ngi doon préparer benn affaire boo xamante ni si dañ koy jàppale élèves yi xam nga loolu yëpp ci team Amadou bi waa la xam nga xam naa après dinañ ci jàllaat bu baax a baax waa parcelle nag man parcelle laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee xam nga munuma def lenn lu dul jox leen jox leen seen wàccuwaay ak lu ma doon doon doon doon star bu may mel ni Youssou sax du leen saf parce que bamay nek xalé xale di def samay baqata sax fi la len fek kon amul len lo xamni xam nga dama koy dund ak wa parcelle lu ñawal lenen wax deug yalla ah mais en tout cas gaay yi Amadou ku beuy titeur la à chaque fois rek da ngay dégg ñu wax peut être sañse ba moo tax mm. est ce que tu beuy titeur bobu euh, manam lan la waaw moy limay wax rek xam nga wala lu nga nek artiste mo tax waaw lolu mën ta ñak xam nga beuy titeur mom xam nga ñu mom suñu famille ñoko mel noonu amana dama mën a sañse rek kon donala donala donala la dono la nga est ce que est ce que amulen leen maamu ndandar kon waaw sama maam bi jur sama yaay ndar la juddoo. ndaka jekk ma xam loolu. waaw <laughs> comme ni ko c'est normal la simplicité c'est de l'art et comme comme à chaque fois gars yi ngay waxee. waaw la simplicité c'est pour les faibles donc. Euh, noonu la hmm. Omar. alors euh, man moom xam naa dama koy terminer ak moom rek si côté école bi. Hmm. nga xam ne si nii ah xam nga ndaw moom boo demee am benn succès bi. Hmm. boo demee école parce que ma fii du ñëw di la sonal wala genre. waaw loolu nag mënta ñàkk mënta ñàkk xam nga. mais comme ay doomu aadama lañ xam nga dañuy mën a gérer gérer ak ñoom bañ leen jàndi mais succès bi mbaa du la topp tamit ba yóbbu la ci loo xam ne après xam nga da ngay toog di regretter wala jara. Mm, ah alhamdulilah de boobu ba tey de alhamdulilah musuma cee regretter dara. Mm. wax dëgg yàlla waaw parce que am na ay conseils samay parents ñu fi samay mag ñu ngi fi xam nga ñoom Aziz ak Bilal yaakaar naa duñu ma bàyyi may def naka sudul noonu. Mm-hmm. alors xanaa est-ce que tey jii mun nga ñu wax am la moo la a si petit gallé. Mm. waaw seen petit gallé aw dara lu fa métti xam da ngeen ne nag dara dara fa parfois nag bi nga am la metti maanaam comme genre lan ñu éliminer la buñ la éliminer du la neex loolu rek la mais loolu sax pas mal am compétition la quoi. élimination bi aussi sa famille nan lañ ko dundee bi nga dikkee xaw nga amoo complexe pour jàkkaarloo ak ñoom puisque bi ngay dem. Ah, euh, je sais bien que ni sa tet mm-hmm. lan nga ci defoon damay dem ma jëli ko andi ko. andi ko bi ñu la éliminé bi nga dikkee sa gàllal sa famille nga war a jàkkaarloo ak ñoom. waaw maa ngi leen ciy remercier bu baax a baax te di leen baalu parce que dama len sonal trop ndax chaque jour fi ni xam nga kër gi mom man ma fi def bruit ak kon bi yëpp nak wa unité 11 yëpp xam nga deug la bamay dem dama dem pour jëli ndam mais bama ñëwé bama ñëwé sax ndam la indaale sax ndam li génnul ki ko gagné ma ko gagné daanaka ben la quoi xam nga defet amu ci ndam la rek mais sant yalla quoi sant yalla waaw. ñu terminé rek xam na parce que lu ñu dese ay waxtu bëré tour mm. dernière question moy amul essence la moy projet yi. waaw projet yi nak wax deug yalla ñoo ngi ci gannaaw bañu jëlé jëlee lépp rek xam nga té ko ci loxoy Prince Art ñun tamit ñu ngi doxalé fi suñu bor moy li ma la wax légui légui ñi ngi yëngu ci walu social ñi ngi yëngu ci walu musique xama man mom je suis apolitique waaw ak sama entourage deug yalla ñu ngi ci ñu ci ñu ngi ñu ngi ci affaire da ñu ci japp jàpp. àndaloo sax Go fay mais Go fay mom man Go fay sama papa la Go fay sama papa la maa ngi koy nuyu bu baaxa baax ragal fete nak mom day xañe wërsëg. man dégg nga ni je suis apolitique waa je suis apolitique boo ko déggee nag mooy xam nga bu ko bu ko jëlee côté bu ki bi buma ma jaxasee gofe gofe ba ma nekkee seen petit gaale moo doon loué kaar yi ñi xam nañ ci dara moo doon loué kaar xam nga di jël billet affaire yoy non xam nga man goofay lay sandir carte pour mu leer goofay ma ngi nuyu nag sama tonton délégué bu baxa bax xam nga ma ngi nuyu ñëpp ak sama grand zëm kan xam nga ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yalla wa Parcelles asini 126 dal ma ngi nuyu tamit sama tonton Ousmane Noreyni xam nga mom tamit dafa sonu ci man dafa sol ci man torop torop torop torop torop parce que amoon ben concert pour ma xawa teunk touti tuuti ben concert bi mën jouer fini ci amoo yi xam nga cause de man ma tax mu def choc autotol ko mi no jël micro bi dama ko andil kon koku yakar naa ni amoo fayam ma ngi gërum tam Mamboy ak Mayram musa Idi sama grand yeb ma ngi gërum tam sama xarit Cheikh Omar ak Badara Papa Let Serigne Lay ñepp ma ngi leen di jaajëfal waaw. léegi moo wax. waaw surtout tv Wassare TV hmm. ah wow mëndu kumba géej saafara géej manjal beer géej sañeti géej ji maam yi ñoo ma wax foo jaar xuus mëndu kumba géej saafara géej manjal beer géej waaw ee eh, ee eh, eh, Aziz aka yaroo ma way jali dafa rëbbi woon kooba suuy jali waaw Wassare TV kontaan naa ci yéen dëgg-dëgg ay naanaan ngeen maa ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi laaj ñeen ndeysaan sant naa lu rëy ni sama mag sama xarit e parcelle yéen lay Eh, eh, eh parcelle yéen laay tiitaroo goo fay dëgg-dëgg bëgg naa laay doomu yaayu tonton délégué fonkur naa la lool eh, eh léelé eh Aziz ak yaroo mooy yéen a ko déggandoo j'ai la chair de poule quand il chante dafa mel ni comme sama yaay biy togg damay gëmm di lekk mu lenn ma lii day neex moom buy woy noonu laay mel il a une voix merveilleusement bien posée sur la musique c'est une élève euh, de Sen Petit Gallé a déggandoo talent kese la comme nee naa comme li koy xawoon sànq talent kese la. donc alors ñu bàyyi ko rek moom mu tàggatoo. Mhm. lan ngay tàggatoo rek. waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax maa ngi sant nag sama yaay bu baax daf may jàppale sama xulóowaal na maa ngi koy sant bu baax baax di sant sama papa di leen ñaanal yàlla bàyyi leen ba ñu fekkee sama njariñ incha allah maa ngi gërëm tamit sama maam ulay ulay si ulay Abdoulaye woy naa ko sax ci ma naan tukkulóor ale rasin tey ma woy sama yaay ku déje si Mamadou Abdoul si la ñu woowee sa baay ulay Abdoulaye la ñu woowee sa yaay yaa neex waay kooku nag moo jur sama yaay wax dëgg yàlla moo ma yar xama moo ma def tay li ma doon maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér moom rek laa fi dese comme maam maa ngi nuyu nag sama mbokk tukulóor yëpp ah bandiraɓe halpular onon fof mi salmini on goor fof inde mum e yettere mum Aziz Gueye du ma taay di la sant maa ngi sant tamit Boubacar ak waa jeune yëpp maa ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm maa ngi gërëm sama nijaay Noreyni idi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp vraiment xama parcelle tamit dégg naa leen sama bopp xam nga maa ngi sant waa Parcelles Assainies 1 ba 26 goo fay tonton délégué xam nga ak ñëpp ñëpp ñëpp vraiment kontaan naa ci yéen. merci beaucoup c'est un plaisir vraiment de partager ce plateau avec vous Ndibaye Omar. alors si euh, disponibilité bi eux aussi dañu faire comprendre beaucoup de choses peut-être que euh, na ay fans yoo xam si ni ñu ngi toogoon di xaar bëgg a dit, Amadou mooy kan bëgg a dégg Amadou mu wax ak ñu xam ay lan la alors TV andil na ko tegal leen ko sur table xam nga pour yéen alors di ko di jaajëfal aussi ñi nga xam ñuy di bàyyi xel chaque instant di jaajëfal ñëpp. may ma may ma ma suma yaay tataangoo ni faaw ma ak kooku da nga koy gërëm commencement gërëm ko fin ndax tay ji ni li lepp mom la Touba Ngoné ne mang koy sant bu baax mang koy gërëm mang koy ñaanal yalla yalla bayiko ak ñun mi ngi dégg lu nekk mi ngi dag lu nekk saa ci ñu la nekk xam nga talu sax njabotam yalla xam nako xam nga ñi koy sant bu baax baax diko ko gërëm waa seen petit gallé nak man may seen porte parole c'est normal ñi koy ñaanal gudd fan ak wër ak tonton Ibou Ndour mi nga xamni dal mooy gis avéré nice da pour mu neex jaay Chers amis internautes, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre. Maintenant, je vais le passer parce qu'il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de manger beaucoup de bananes et de vous abonner sur Wassare TV. Ciao, à bientôt.